tëralin bu bees à aar suñuy constitution la paix civile au Sénégal Yewwi mooy sa mission Yewwi Askan Wi injustice lay hier. ak élection locale yi bu kenn tiit day jeex sàmm suñuy àq ak yelleef wareef ci tu mu doon Sénégal ñi le mérité jàmmi réew mi lu koy dooleel mooy yeewi buum bi ñu yeew suñu baax ñun ah, am nañ seetlu ni askan wi yàgg nañ ko xeex nañ jubal liy dëngal suñu réew teg gouvernance bu leer mooy saxal état de droit yi ci anam bu sell sàmm alalu askan wi def ko ci teel ndax am nañ seetlu ne géopolitique bi ak koom-koomu réew mi demul depuis 2012 ba léegi ngeen ni cell takku jóg la libéré victime yi rek moo ñu tax a jóg nañ yeewi askan wi jug ci liggéey bi fi ku jot na askan we askan, we askan, we Nanyu ye we askan, we askan, we askan, we Nanyu ye we askan, we askan, we askan, we Nanyu ye we askan, we askan, we askan, we Aye, nyolen de mamako Te kheko Nanyu ye we askan, we bàyyi ñoo leen jéem a mànkoo te xeex ko nañu yeewi askan bi ñoo ngi jëm ci élection locale yi taba meeru gox goxaan yi woote jàmm suñu doole suñu carte te yërmande ci méttitu askan wi samp collectif bu mat sëkk sauver suñu Sénégal ah bàyyil na law jóg sa lal yeewi askan bul ci tàyyi nañu ànd yeewi askan ngir comme gi baawaan faw ñu yeewi askan ak émergence foog ñu yeewi askan wi waaji toog di xaar du ñu dellu ginnaaw non du ñu nangu ku ñu xoqatal yile élection di ñëw du ñu may dara na candidat yëpp jóg taxaw ñu ànd ak askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan wi askan wi askan wi can you hear we asking, we asking, we asking where? Ayen, yulen jemo manko, techerko. Can you hear we asking, we? Ayen, yulen jemo manko, techerko. Can you hear we asking, we?

Eh, ah ñun am nañ seetlu ni askan wi yàgg nañ ko xeex nañ jubal liy dëngal suñu réew teg gouvernance bu leer mooy saxal état de droit yi ci anam bu sell sàmm alalu askan wi def ko ci teel ndax am nañ seetlu ni géopolitique bi ak koom-koomu réew mi demul depuis 2012 ba léegi ngeen ni cell takku jóg la libéré victime yi rek moo ñu tax jóg nañ yeewi askan wi jug ci liggéey bi fi ku jot na askan wi askan and you yeah we askan we askan we askan we and you yeah we askan we askan we askan we and you yeah we askan we askan we askan we ai yolen dem mako lépp li ñu bëgg fii dañ ko am ndax dañu yàkkamti lu mel bëgg ko am ko tey kon buñ ko amee tey kon war nañ ci taxaw xar ci suñu tànk tubay lii naka lu ngiraan laa ko wax ñëpp nañu xam loolu ñëpp am nañu courant amu leen courant góorgóorlu leen ñi nga xam ne ñoo ñëw tey ci ñoom ngeen mën a amee courant keneen mënu ko am képp ku ñëw nee leen dinaa leen ko indil te du ñii ba leen di nax góorgóorlu leen na xëy nag doy na kon am nañu ñii comme yàlla indi na leen yàlla ñu yàlla defal li nga xam ne moom la ñu bëgg ñoom yàlla defal leen li ñu bëgg yàlla taxawu leen lépp li ñu am ndam yi ñuy wut yàlla may leen ko ci xol bu seddu guy ba ànd ak jàmm ak salaam kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm ni ngeen delluwaat nag ñëw di def fi meeting bu rëy jërëjëf ah. que boo doon gisee yu bëri sawaruma ci parce que dama ko def kilifa mu mat kilifteef boobu moo ko def te lépp li nga xam ni tey jii yeewi askan bi soxla na ko ci biir dëkk bi daanaka duma ci wax ak moom lu mu ci doxal loolu la lu mu ci dogal loolu la fu mu jëmit foofu laa jëm

boo ma leen ma ne école école boobu yaakaar naa ni fa mu jóge xëy na fa mu nekk rek il fallait que mu jaar ci loxoom mais du mën-mënam du bëgg-bëggam du it coobareem li ci mujj mooy juru alnguraan ñu ngi pikiiru fii ba Amoura wala Mboubeen bi ma ci mujjee dem man ak benn responsable ci dëkk bi ba léegi loolu musul sotti te it ma leen di wax bari na ñu fi ñëw naan leen courant dañu koy indi courant dañuy def lii lépp luñ leen ci wax suba ba ngoon dañ leen di nax dañ leen di ruube ay dóor marto la mbirum courant mi jàkkaarloo ak askan bi ñu defoon biir Amoura le commandant boole nañoog le directeur Sénélec régional bu Saint-Louis ba ñu fa demee it lim ñu wax lu leer la commune Jama amul benn demande bu fa mës a ñëw ci turu commune bi Jotna Gaaya jotna naa Richard Toll jot naa Rosso Sénégal muy ay subvention yu état du Sénégal di def kon nak ki nit ki nga xamni ni fa ñuy dimbalee sa njaboot ci lu wul sa poste, ñëmé wo fa dem wuti ndax di ngay ko jëlé sa poste. c'est pas vrai c'est pas vrai liñ ñu wax nee nañu bépp nit ku nekk ci dëkk bi ngay responsable soxla courant photocopier ce carte d'identité ngeen def benn demande collectif bu leen neexee bu leen ko jox manager parce que manager dafay politique bu leen ko jox migine migine day politique mais ànd leen ak seen chef de village ak responsable pôle yu ñu génnee ngeen dem ba directeur Senelec ngeen ni ko ah lii kat mooy demande El Ngourane en janvier 2022 bu soobee yàlla bu fi ñëwul ngeen xam ni que yéen seen wàcc seen jàng wàcc na beneen biit may wax ni que ay doomu aadama boo nekkee ci kuréel ñu investir ci say doom kii nii doomu dëkk bi la muy Mariam fal mi ngi ci liste bi kooleen leen jàppale te jàppalewu leen ko da ngeen door seen loxo ci ak nit nag du soxare moomeelu doomam te loolu daf fi bëri dama bëgg mu jóge fi man mii investir nañ ma ci list bi tey suma su jàlloon njëriñ bi duma ko yóbbu Takagañ du ma ko yóbbu Lamsaar biir El Ngourane bii laa koy bokk ak yéen kon nag nit ki boo demee ba munoo jàppale sa doom munoo jàppale jàmbur allahu fi awni al abdi ma dama al abdu fi awni axi waru leen toog ñu leen di ruube naxe bi dafa jeex El Hadj Umar Sow nit ki jëmmam ci boppam bañuñu ko Parce que quoi qu'on puisse dire, ne il pas voir celui qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Et nous, nous ne sommes pas néhilistes à ce point. Parce Ibrahim Mbodj, mi la délégation, B, nous a dit que nous avons faire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que on n'a pas de problème avec Marceau, mais on a un problème avec des marches, la commune ne marche pas si jii soo commune bi dox des techniciens de surface planification lan aménagement xam lan que agriculture Benen bi Askan programme fiable un programme qui dañ ci jël en compte l'électrification rurale xamnañu fan lañuy jaar nan lañuy def yan pexé lañuy nas xaalis amul mais pexé pour wuti lolu amna na à condition que ngeen jël sen baat jox ko Yewwi Askan bi ñu gagner au soir du 23 janvier bu boba ñun dañu saytu lolu merci merci. ba njëg may ma tuuti dama nekk sama biir dëkk te dafa am ñi nga xam ne dal foo ma leeral ko s'il le faut buñ fi waree fanaan dañ fiy fanaan parce que am na li nga xam ne ñun ñoo ko xam am na yenn naxe yi nga xam ne yéen leen ko te keneen fekkeew ko dama bëgg ngeen moytu ñu leen di nax tëralin bu Bessi yi aar constitution la paix civile au Sénégal Yéwi mooy sa mission yéwi Askan Wi injustice lay xeex ak élection locale yi bu kenn tiit day jeex sàmm suñuy ak yelleef wareef ci tu mu doon Sénégal ñi le mérité Jami réew mi lu koy dooleel mooy Yewwi buum bi ñu yeewu ñu baax ah, ñun am nañ seetlu ni askan wi yàgg nañ ko xeex nañ jubal li dëngal suñu réew teg gouvernance bu lèr moy saxal état de droit yi ci anam bu sell sàmm alalu askan wi def ko ci teel ndax am nañ seetlu ni géopolitique bi ak koom-koomu réew mi demul depuis 2012 ba léegi ngeen ni cell takku jóg la libéré victime yi rek moo ñu tax jóg nañ yeewi askan wi jug ci liggéey bi fippu jot na askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan wi askan wi askan na new year we askan, we askan, we askan, we Aye, yeah. nyolende mamako, techeko. ngi jëm ci élection locale yi taba meeru gox goxaan yi woote jàmm suñu suñu carte yërmande ci askan wi samp collectif bu sauvé suñu Sénégal ah bàyyil na law jóg sa lal yeewi askan bul ci tàyyi nañu ànd yeewi askan ñun comme ñu askan ak émergence foog ñu yeewi askan wi waaji toog di xaar du ñu dellu ginnaaw non du ñu nangu ku ñu xoqatal yile élection di ñëw du ñu may dara na candidat yëpp jóg taxaw ñu ànd ak askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan wi askan wi askan wi then you hear we asking, we asking, we asking where Ayen, nous l'enje mon manco Te cherko, you hear we asking, we Ayen, nous l'enje mon manco Te cherko, you hear we asking salaamaaleykum waa Medina Màkka ñoo ngi nuyu ñëpp di rafetlu aussi tamit teewaay bi di nuyu sunu ñaari leader yi ni àndal mooy Mamadou Moussa ak Baba donc di rafetlu aussi tamit seen taxawaay yaakaar naa coalition Yewwi Askan bi du ma ni sax coalition mais double coalition Yewwi Askan bi kenn du ko naatable fii si Medina Màkka parce que doomu dëkk bi ñëw fekk si ñu ànd ak ñun di liggéey. pour li nga xamante ni mooy soppi gox bi yaakaar naa loolu aussi tamit yéen waa Medina Màkka dañ si sawar pour jàppale leen donc nag caravane bi rafetoon na si biir jama gis nañu aussi tamit taxawaayu waa jama par rapport ak seen doomu dëkk te ñu leen di ñaan parce que coalition bi du PUR kese du PASTEF kese du wàllu Sénégal kese mais waa Aïda Mbodj aussi ñoo ngi fii waa taxawu Sénégal aussi tamit ñoo ngi fii bu Khalifa Sall soin bu ak yeneen i parti yeneen parti même âge yi jot na jéngu ñëpp ñu ngi si biir coalition bi donc ñuy ñaan ñu ñëw booleendoo suñuy loxo li nga xamante ne mooy métti métti askan bi jafe-jafe askan bi ñu soppeendoo ko parce que bëgguñu rek ngeen jiital ñu toog si ginnaaw mais doon bëgguñu ñu ànd ba li fi nekk ñu fexe ba soppeendoo ko yaakaar naa Baba wax na ko Mamadou Ba wax na ko donc di jaajëfal aussi tamit ki nu fekk si ak lu mu mënti doon tey mooy borom dëkk bi ñu nuyu ko muy monsieur Oumar Sow monsieur le maire mais système bi nanu bëgg soppi ba xamante ni ku nekk doomu jama bu nekk daa gis sa bopp si biir commune bi neuf compétence transférées yi bëri na trop mais amul benn amul benn boo xamante ni doomu jama mën na ni lii gis na si boppam te Yewwi Askan Wi nag dafa fas yéene ñëw soppi loolu opposition moo fi am ak pouvoir ñun ñooy opposition bi ñoo ngi taxaw donc ñun ngeen une opposition pour mu soppi li fi nekk jërëjëf Assalamu jërëjëf. Assalamu wa rahmatullah Wa mbokki Medina Makka ñongi len di nuyu yeen ñep ci sen tour ak sen sant di rafetlu vraiment tertu bi ngeen ñu tertu amna solo lol euh ñongi jël nuyo bobu di ci loxo chef de village ak euh, même euh,

muy ay activité politique yu am solo ñu ñew fassiyene and ak ñun donc lolu dañu ci contane dañ ci te ji ji ngor kon ñun tamit dinañ leen fay ngor inshallah yal nañu yalla may ñuy muy euh, la commune de nous au soir du 23 janvier 2022 bu nous inshallah wa Medina Mak dinañu xamni gor commune nous nous également ay borom xam-xam ñom ñoo la commune bi parce que nak dara taxu ñoo jóg yewi askan wi. parce que jafé jafé yi 26 ans de pouvoir amul ben réalisation bo xamanteni amna solo bu nu mëna gis donc xalé yi amuñu liggéey xalé yi amuñu suuf xalé yi mënu jang bu côté santé bi également fo laal mom

que askan yu mën gis seen bop vraiment ci commune bi ni muy doxé parce que nak ñun ñëpp ñoo bokk commune bi maire bi momuko conseil yi également momuko commune bi askan wi ñom ñoo ko moom li ñu sante maire bi sante ko conseil yi moom mooy ñu taxawu njëriñu askan wi je pense que loolu la ñu bind dans les textes mais ken bind fi ni maire bi dafa war nek bour bo xamante day tok fu mu tok nit ñi diko tag mu jël ay enveloppe di joxé donc loolu dañ ko wara bannir dañ ko wara changé it inshallah allah changer le 23 janvier 2022 avec la coalition Yewwi Askan Nous avons également suñuy naataango yi nga zone de Yalar. d'ici Omar Mokhtar Lafal, Fall nga nous avons nous nu war également monsieur Ibn Fall Madjer bi nga également jaar nañu nous muy Ngad également. yenn leader yi nga xamante ñoo ngi si biir Maka Jama muy euh, monsieur Sayer Diop monsieur bu Diop ak euh, madame Kaltom Fall ñoo ñëpp ñoo ngi leen di ziar di leen gërëm di rafetlu également seen taxawaay si biir coalition Yewwi Askan Wi ñoo ngi gërëm également leaderu yalaar yi nga xamante ni xëy na euh, tey jii amuñoon temps pour teewee journée bi ku si mel na Medoune Diop bu Taba ku si mel na Moussa Fall bu Ndig waaw ñoo ñëpp également ñoo ngi leen di gërëm di leen sant Dilen leen loxo également wa Medina Bank. Dilen leen wax ni coalition Yewwi Askan Wi incha allah na djel commune bi le 23 janvier te yeen tamit war ngeen bok ci ñi jox amul amul ragal inshallah on va vers la victoire au soir du 23 janvier 2022 donc ma ngi len di gërëm di len sant di wax wasalaamualeykum wa rahmatullah ba beneen. wa may wax ni 23 euh, ans de pouvoir. ñaar fukki at ak ñett nga ànd ak doomu aadama ngay liggéey moom moom ngoon gu ngoon ba bëccëg mu jiite la nekk sa imaam te bus bu nekk muy juum ci salaatul fatiha te ma soo ko sàbbal nga xëy benn bis ni dootoo julli ci gànnaam ndax julleem baaxul yow it sa julli baaxul ndax doomu aadama booy àndeek moom ñaar fukki at ak juróom-ñett lépp lu mu def lu baax sa loxo ngi ci waaye it lépp lu mu def ci safaan ci lu bon sa loxo mi ngi ci kon nag ñii xëccoo commune Jama ñaari parti kese lañu muy Benno Bokk Yaakaar ba nga xamante ni moom la monsieur le maire Omar Sow jiite ak coalition ba nga xamante ni moom la ñuy wax Yewwi Askan bi monsieur Ibrahima Mbodj jiite ko ñeneen ñi ci des yëpp ay gas kàmb la ay dóor matalo ñoom ñëpp benn la ñu ñoo bokk benn ndey bokk benn baay ndax lépp c'est l'APR dans l'APR kon nag askan bi nañu yeewu xippi xool fi ñuy teg seen tànk ak seen tànneef lan la te xam ni ku sànnil yeneen ñeenti coalition yooyu yooyu des yeneen ñeenti parti yooyu ku leen sànnil wooteel nga le maire ku leen wooteel rek jox nga sa carte le maire ndax ñoom ñëpp benn lañu ndax ñoom ñoo àndoon boobu yàgg na 23 ans ba léegi ñuy ànd te kenn ma su démissionné kenn si ñoom du wax ni sama lettre de démission ngi nii kon boog lépp lu baax ñooma waaye lépp lu bon ñooma te nag yaakaar naa ni commune Diama dara baaxu fi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu

askan wi yàgg nañ ko xeex nañ dëngal suñu réew teg gouvernance bu leer mooy saxal état de droit yi ci anam bu sell alalu askan wi def ko ci teel ndax am nañ seetlu ne géopolitique bi ak koomu réew mi demul depuis 2012 ba léegi ngeen ni cell jóg la libéré victime yi rek moo ñu tax a jóg nañ askan wi jug ci liggéey bi fippu jot na. askan wi askan wi askan wi nañu askan wi askan wi askan wi yeah, we askan, we askan, we askan, we. Nanyu, yeah, we askan, we askan, we askan, we. Aye, yeah, nolen de mamako, te kheko. Nanyu, yeah, we askan, we. Aye, yeah, nolen de mamako. gi jëm ci élection locale yi taba meeru gox goxaan yi woote jàmm suñu doole suñu carte yërmande ci mettitu askan wi samp collectif bu mat sëkk sauvé suñu Sénégal ah bàyyil na law jóg sa lal yeewi askan bul ci tàyyi nañu ànd yeewi askan ngir comme gi baawaan faw ñu yeewi askan ak émergence foog ñu yeewi askan wi waaji toog di xaar du ñu dellu ginnaaw non nangu ku ñu xoqatal yile élection di ñëw du may dara na candidat yëpp jóg taxaw ñu ànd askan wi askan wi askan wi nañu askan wi askan wi askan wi nañu askan wi askan wi askan wi then you hear we asking, we asking, we asking where Ayen, nous l'en j'ai mon Te cherko, then you hear we asking, we Ayen, nous l'en j'ai mon Te cherko, then you hear we asking

moom ñu ñëwee eh, suñu baax ah, ñun am nañ seetlu ni askan wi yàgg nañ ko xeex nañ jubal li dëngal suñu réew teg gouvernance bu leer mooy saxal état de droit ci anam bu sell sàmm alalu askan wi def ko ci teel ndax am nañ seetlu ne géopolitique bi ak koom-koomu réew mi demul depuis 2012 ba léegi ngeen ni cell takku jóg la libéré victime yi rek moo ñu tax a jóg nañ yeewi askan wi jug ci liggéey bi fi bu jot na askan wi askan wi askan wi nañu yeewi askan yevi we, askanvi Nadu yevi askanvi askanvi we.